ci bi. ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante la. ok ay jongante. dañuy jongante man ak yow. bi saf-saf. yéen yomb yomb. mais mademoiselle dama bëgg bàyyi mii bàyyi gaajo mii nga daal di koy jël sànnil ma ko ca xaj. dama bëgg nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def. wala léegi da nga bàyyi ñoom a ñaar nga jëli njaago bi jëla góoru njaago ñu ne lakkat xamul caaxaan bàyyi moo doon wax waxu jabar jabar waaw yow la may premier njëkkee bi xanaa non non pour man la boo déggee ba naan pataas. kenn du kin rumbax. rumbax ah, c'est pour les c'est pour capara càkkin capara càkkin capara pindalo capara càkkin gaay tii càkkin càkkin man càkkin càkkin <laughs> dégg nga pindam pindam ram càkkin càkkin patas qui débarque qui débarque ça c'était son grand-père son grand-père refusait de dire la ilaha illallah alors le petit-fils a dit tas ma tas rambe ki ndax et le grand-père a dit la ilaha illallah et il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak bàyyi la dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tuccu tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko bës addi ko bës dindi kaxaw bakkana bi benn baax benn il fait avec moi bàyyi man lay jëm a suuf moom daa am sax saman amee cu amee cu John Seck moom non lii moom faaw ñu defaat ko jongante bi vraiment kontaan lool kontaan naa trop foo defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante saraax la def ci xew-xewu lamb tey fekk fa souvenir ba fàttaliku lamb ji amoon le 22 avril 2012 Yaxya Jóob Yékini ak Balla Gaye le Lion de Guédiawaye bés tey la ñu bëree ci 2012 le avril la woon combat bu rëy ba combat bu mag ba combat mémorial ba waaye combat historique ba combat royal ba le 22 avril bii ca la Balla Gaye de njëkk nekk roi des arènes ci kaw Yaxya Jóob Yékini le 22 avril bii ci atum la Yaxya Jóob Yékini di dégg muñal ba Balla tojul journal ba xam le ne jamono joojee Luc Nicolaï 295 la génn ngir taxawal bile combat Yaxya Joob Yékini 175 la ko fay Balla Gaye 220 rax ca dolli ñu amal face à bu toj foofee ca Radisson face à bu bëri coow bu bëri xeex borom gëmuma daanu daan laa xam le 22 avril la ko ko Balla Gaye jàngal bindal ko ci adduwaas mu koy nafar sunu papa Ngagne Diagne ne Balla Gaye 2 dafa réussir fi ñëpp échoué fi Tyson ak Baboy ak Bombardier échoué moom fàttaliku la Yaxya Jóob Yékini doon wax la mu xam le mooy Yaxya Jóob Yékini da doon naan sentiratuma samay tànk journal ba xam le ne bi le combat combat bu kenn dootul fàtte la ka axlu lamb dul fàtte mooy sunu papa Mor Ngeer ma fi jóge dimanche 19 avril bi ñu génn moom sunu papa Mor Ngeer génn na àdduna bàyyi ginnaawam ab tàgg wudul jeex mbooleem ñi ko xamoon ci làmb seede woon nañ ci moom lu rafet ca seede yaag fàttaliku ya bokk na ca suñu papa Mbay Géey moom gannaaw naqar ga muy amee teewut mu wax relation yi amoon digganteem ak Mor Ngeer rax ca dooli ne Mor Ngeer ñun axlu lamb gépp la amaloon jàmm taawam bi man la ko tudde am na beneen doomam bu mu tudde tubaabu Dior loolee mooy wara ne lu bari moo doxul suñu digganteeg moom li ni mel nag moo tax association des sages ñoom def seenub délégation dem ca kaw promoteur bii ji foofee ca brigade de recherche ba nekk ca Dakar gannaaw ba ñu ko jébbalee plainte am tontu ba doon dox ca digganteem ak brigade ba lam ca tontu bokk na ci Assane Ndiaye ko dépassé ko li xew ci sama sama laa waxta ca laa yem bi ma def kay mooy waruma woon tudd turam loolee nag maa ngi ciy jéggalu di ko baal wax jéggalu naa Assane Ndiaye dootuma tudd turam waaye am naa droit wax ci sama combat rax ca dooli ne moom moo tëggoon combat bi te 5 millions la nu fayoon avance ba da ko doon dagg-daggee 1 million la ma njëkk jox tegaat ca 400 000 tegaat ca ca 150 000 tegaat ca 30 000 avance ba nii la ma ko joxe ba mu jeex yore lu ma dërëm waaye ba jërë ngeen mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci ëttu bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha bi ah perte nga gauche perte droite perte ci diggante bi. ay jongante la. ok ay jongante. dañuy jongante man ak yow. kon daan dama bëgg bàyyi mii bàyyi gaajo mii nga daal koy jël sànnil ma ko ca xaj. dama bëgg. nga wax ma ñaata ngay laaj lum ci doon ma def ko am naa ko mën naa ko te dama koy def. wala léegi da nga bàyyi ñoom ñaata nga jëli njaago bi jëlee góoru njaago ñu ne lakkat xamul caaxaan. bàyyi ma doon wax waxu jabar. jabar waaw. c'est bien yow la may premier njëkkee bi xanaa. non non man la Pikine rumbax rumbax ah, c'est pour les c'est pour les rabel batas rabel batas piñe piñe capra cakin capra cakin capral pindalo capra cakin gaay ti cakin cakin man cakin cakin dégg nga pindam pindam ram cakin cakin patas qui débarque qui débarque ça c'était son grand-père son grand-père refusait de dire la ilaha illallah alors le petit-fils a dit tas na tas rambe kinda et le grand-père a dit la ilaha illallah il est mort d'accord wax ji dootul man ak yow mais man ak dama ne woon damay xeex ak moom jàpp ko tucc tuccal ko pamte pamte ko jàpp xol bi di ko bës addi ko ko bës dindi kaxaw bakkana bi benn baax benn il fait avec moi bàyyi man lay jëm a suuf I'm a Jew. I'm a Jew, John Jacob. lii moom faaw ñu defaat ko jongante bi vraiment kontaan lool kontaan naa trop bu ko defee ngeen mën a xamaale samay mbokk ñu defaat beneen jongante